avec les institutions et assurer Interimo, ministre des Finances et du Budget. eu le directeur du budget, monsieur le ministre, l'ensemble de vos collaborateurs, les membres de votre cabinet, directeurs nationaux, directeurs généraux yi nga monsieur le ministre Lol, qui dalal assemblée nationale muy assemblée boo parce que n'est qu'un ministre qu'un député qu'un maire. fonction yooyu rek nag mooy li ñu am ci am république yàlla def wolof yi dañuy wax ni ku juboo ak say mbokk rek baax na te li ñu xam ci yow mooy juboo nga ak say mbokk kooku mooy premier mandat bari na kuy wax fii te amul yow nag waaw dëgg yàlla fi ñu la gis nga jaar ndombo tànk bu nit ay mbokk war a jox doomam war jox mbokkam jox nañu ko kon nag jubal nga ak say mbokk ñaareel bi mooy réew mi ñor na la lu tax réew mi ñor na la d'abord mooy sa engagement politique parce que boo nekkee intellectuel engagé wu politiquement di xeex ba ñu naan dem nga ci kaso mooy réew mi ñor na la waaye réew nag bu la ñoree mooy bu fekkee dañu woote waxtaan président de la république woote nga ñëw wuyu si kooku beneen mandarga la ci sa hauteur ak sa dayo kon loolu tam ñu ngi la ciy félicité ñetteel bi mooy liñ na jox ñu am yaakaar bu baax ni mën nga ko téye parce que fi nga jaar bu ñu jëlee tey benn pàcc ci li nga xamee mooy réew mi dénk la ko muy pàcc bu am solo muy mine ak géologie ñun rafetlu nañu ni ñii nga andal di leen mën a manager ba résultat yi nga bëgg am nga am ñett yooyu yëpp tax nañu wax Aziz dafa wax ni Serigne Cheikh dafa am leneen lu wax nee na Sénégal dafa am lu fi ne nee dafa dem Liban di waxtaan ak benn góor mu ni ko fan nga dëkk mu ni ko Sénégal mu ni ko Sénégal mu ni ko mu ni ko dëkk bu naqaree dund te neex a deewee la nee na booy dund lu ñuy jël yëkkati la boo deewee ñoom ñëpp ñu wër la di la tàgg loolu nag mooy Sénégal dafa am lu fi xew mooy bu ñu lay tooñ ñëpp dañuy seetal bis boo taxawee sa dëgg di fay ñëpp di ak soxor loolu nag mooy lu ñu mandargal tey tey nag yow na nga jàpp ni fii nga ñëw ci assemblée nationale dafa am lu la tënk ñuy wax ñëpp xam nga am na lu la tënk parce que dafa am ko code nit ñi boo xamee ne ni moom mooy li nga xam ne moo ëmb loi yi nga xam ne yëpp secteur bi ñu la jox waaye fexeel ba jubab code bi rek lépp looy def na dëppoog moom bis boo demee ba gis ci li ñu war a soppi waxtaanal indi ko assemblée nationale ñu soppil la ko bu ñu ko soppee boo ci tegoo rek yaa ngi tegu ci yoon waaye bu la kenn tegi ci yoon parce que code mi ñu mooy ëmb lépp lu ñuy def ci biir euh, secteur bi nga xam ne moom la ñuy kooku nag sànq yaa ngi ci rek yaa ngi ci yoon bu baax li ci des defe naa ni képp koo xamee ni doomu réew mi nga boo ñëwee tey fii bu fekkee indi nga fi loo xamee ni nii président wax na la ko ngeen indi ko fii dana lañ ci jàppale parce que xam nañu ne fi nga jaar ak sa parcours loo ñu indil ba ñu ko indil sa yoon di ko càmbar ba xam loolu juboo na ak yoon wala juboo la yoon moo tax am nañu yaakaar ci yow te dinañ la jàppale coow li nag mën sa ñàkk waaye nag li ñu wax rek la base du crapaud n'atteint pas la plume de la colonne loolu mooy li nga xam ne moom laa bëggee asalaamaaleykum wa rahmatulah. merci beaucoup.